mbokk internet yi seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaan teew fii ci le point de la rédaction di ay jotaay ñu koy amal saa su nekk di ci waxtaanee lépp loo xam ne si ni actualité leen di xew fii ci biir réew mi ma ci ànd ak Moustapha Mbaye dama koy bàyyi mu nuyoo ñu soog a jàll ci waxtaan bi Moustapha nuyu naa la. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun si sunu émission bi di le point de la rédaction di gërëm Libaas Mbaye mi ngi ciy àndal moom moo jàpp ci technique bi. ñu daal wax ci li nga xamante ni jamono ji moom moo defoon actualité di euh, déclaration bi nga xamante ni. wala accusation yi nga xamante nii kii di euh, docteur Niang bu euh, euh, suma assistance am defoon na ko démb nag daal dinañu koy convoqué wuy ji na 14 moom nag jàkkaarloo na ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy enquêteurs yi 14 heures ba deux heures lañ ko doon laaj ci ay preuve nag indiwu ko ndax ka nga xamante ni kooku moo ko jaayoon ay matériel moom bi ñu ko enquêteurs yi woowee dafa xam le nii te nekk ci kër sëriñ bi dafa xam le nii yooyu les matériel mi ngi ko jënde woon fële ci Chine lu ci mën di am docteur Niang bàyyi nañ ko mu daal di ñibbi nga xamante ni mooy professeur Niang moom daal dinay dëggal waxi Babacar waxi ki nga xamante ni moom moo di docteur Niang li ma xam ne nag mooy am boo xam ne si dañ ko doon jaay à des privés lu ci mënti am mooy que ni docteur euh, bi nga xamante ne mooy Babacar euh, euh, na ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di enquêteurs yi Moustapha Demb waaye jamono bi amul lenn loo xam ne si daal tukkee na wala mën nañ ko jàpp ci li nga xamante ni moom moo xew ci diggante ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di enquêteurs yi euh, procureur wala parquet bi moom moo ci moom moo ci des pour euh, jox suite yooyu les boobu les dossiers wala. c'est c'est triste li nga wax nii parce que su ma bi ma bi ma déggee. nga ne déglu nañ ko 11h ba 22h xaw ma affaire wala temps boobu yëpp 14h ba ba 22h temps boobu yëpp mu def ko brigade de recherche damay jàpp ne lu triste la loo xam ne mënoon naa ñàkk. Mhm. mënoon naa ñàkk parce que ci pandémie la nekk d'accord. Euh, dëgg la diffamation bu amee. Uh-huh. kenn mënu koo rafetlu. Uh-huh. Euh, fausse information bu amee kenn mënu koo rafetlu. Uh-huh. mais dafa am yoo xam ne tamit euh, ñoo xam ne boo leen amee sa koor. wax loo xamante ñeneen ñemewuñu koo wax. c'est une chance. mais boo leen bëggee jël. tënk leen dootuñu waxati problème mën naa am mhm. parce su boobaa li nga xam ne dafa nëb balaa nga xam mu xeeñ ba commencé déranger nit ñi mhm. mais su fekkee ñoom dafa commencé nëb ci suuf ñoon ah attention mbir maa ngi nëb mbir ngi lay rendre service mhm. malheureusement dafa mel ni ñi jiite ñi jiite xamuñu loolu jëruñu ko en moo tax démb damay rafetlu bi Aliou ne ñi mel ni euh, docteur euh, Babacar Niang dañ leen war a protéger ay lanceur d'alerte tey jii lii ñu wax ni waroon nañ ci mën a taxaw am ci eh, jàngat taxawaay bu am solo ñu xam fan la mbir mi jël ak ñan ñoo ñan ñoo eh, bokk ci mbir moom nga xamante ne kenn mënu koo rafetlu mhm. au lieu ñu koy jël di ko bàyyiloo brigade si ñu naan war na delluwaat tay ak mhm. Mhm. procureur moo ci moo ci des fi ñu toll nii mooy xool ba suite la koy jox ak par gauche par droite yooyu yëpp man yaakaar naa ne ay mbir la yoo xam ne mënoon naa ñàkk li mu wax lu ne fàng la kenn du ko jeex ñëpp xam nañu fii Sénégal mbirum sant bi am na benn marché noir boo xamante ne bu am doole la ay borom doole di ko entretenir bagage yi waroon yem ci hôpitaux yi ñu koy jël di ko jaayaat loolu du loo xamante ne fi ñu toon nii créé fi dara mhm. te li tax tey ji moom bu buñ ko yóbboo foofu mi am problème mooy ñi nga xam ne ñoom la ko séqal ak ñi nga xam ne ñoo koy jaay mhm. ku nekk da bëgg protéger sa bopp parce que da xam ne soo ne maa ko jaay eh, wala fii da am problème après man su ma témoigné après man li ma li ma yor ma si fekk ñu jàpp ma tëj ma ne ma foo jëlee matériel bi kooku ma ko jaay tamit ka ma ko jaay ci ministère bi tamit ne ma problème amaat foofu mhm. moo tax suñ bëggee compter si ay preuve wala ay kii kii moo la ko jaaykel même ki ko ko jaay su moom su jëndee sax moom en personne mm-hmm. su demee ne ki ko jaay kooku mën na ne jëloo ko ministère Chine laa ko jël lu mu koy mënal te mu xam ne kii ministère la ko jëlee mm-hmm. wala beneen dëkk laa ko jëlee lu mu koy mënal donc ay mbir la yoo xam ne pour man lu fi nekk la Euh, professeur Niang tamit il a raison. Mhm. mu ne moom li li mu wax lu am la mu ne docteur Babacar Niang parce que ñaari Niang la. donc boo defoon nag di nga def confusion ak docteur Babacar Niang bi nga xam ne moom mooy médecin chef bu SAMI ministre mm. bu bu bu suma assistance. Mm. waa donc kon xam nga kon euh, li mu wax moom nee na waxaat na ko nañ ko ñëw porter plainte. effectivement boo kooku tey nu ñu def dañ koy jël plainte yóbbuwaat bu keneen bu médecin yi génnaate ne loolu aman ñu port finalement ñu tëj médecin yëpp xam nga pour man dafay loo xamante ne comme bàyyi nañ ko mu ñibbi këram mm-hmm. nañ jël dossier bi ñu def ko sans suite ñu avancé dem te loolu sax du doon lu baax na ci procureur dugal loxoom ñi nga xamante ne dañoo démantelé CTE yi ñu tegoon l'attraque yi su fekkente ne am na ñu teg leen ay daane ca war. Mm. mais malheureusement ñu ñu ñu orienté ko ci euh, fexe ba trouver ñi nga benn nit. Mm-hmm. pour pour def benn contre-feu fay mbir mi naan non daf ñoo accusé dafa def nii. Mm. def na accusation doon na loo xam nit ñi yàgg nañ ko wax. yàgg nañ accusation la sax est-ce que du alerté wul rek ministère bi mm. pour ñu xam que ni am na ay jëfkatu ñaawteef yu nekk ci biir di def naka su dul noonu pour ñu ñu ñu jàpp leen. mais noonu lañ ko war a jëlee alerte lañ ko war parce que pour man dañoo war a yëkkati ay corps yu mel ni IG wala OFNAC ñu jël nga xam ne la ñu dugg ci mbir mi xool fan la mbir mi amee lëj mbët ko génne fi luxum bi amee wala njuj njaa ci amee mhm. mais suñ ko bëggee jël jël benn nit yóbbu ko yaa wax li foo ko déggee foo defee nii foo def nii après finalement dafay dafay am yeneen yu muy nduru day nduru mhm. benn intimidation boo xam ne jéem nañ ko def ci benn nit gis nañ fi beneen professeur bu génn wax ne lu am la mhm. te ñoom seen biir xam nañ mbir mi lu am la parce am na ñoo xamante ne ci biir nee ñi ngi ci

loo ko mën a sax du la gëm rupture dafay am ci mm. confiance bi mm-hmm. dootu la wóoloote parce dafa naan ñii duñ wax dëgg waxuñu li am mm-hmm. te li ñuy wax nii képp koo jege koo xamante ne dund na am malade mu am corona mu dem hôpital ba ñëw bu waxee nga dégg da naan mais kon li mëno gis télé yi seen dëkk yi mi ngi am suñu hôpitaux mm-hmm. ñu lay expliquer ay nit ku ñu amul place ñu tëral ko jël ko yóbbu ko këram wala def ay situation yéeme yoo xamante après ñu ne la lépp lépp lépp lépp lépp ñu situation bi contrôle nañ géré nañ ko man tey ma déggee benn technicien supérieur mu ne dañuy am problème EPI maanaam équipement de protection individuelle mu ne dañuy dañuy yenn saa gants yi ñuy jëfandikoo dañuy am rupture rupture u gant wala li ngay sol pour jëfandikoo ngeen am rupture toog amoo leen ko mais ak fi mbas mi toll nga waroon xam loolu mooy li jiitu ñoom ñoom ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi contaminé rek bis ñu nga xam ne ñoo nekk ñoo nekk ci premier plan ci ci bi mais ji dañoo waroon am bay desal ñooñu da ak lu mu munti métti métti ak lu mu ñàkk-ñàkk médecins yi dañoo waroon a am jumtuwaay yu doy bay desal mais da ngis kooku ñu investi plateau ñu toog naan par exemple gants yi dafa cher pour ñu am gants dafay métti mais dañoo waroon fexe ba su ni ñu def ci oxygène bi ni def ko ci gants yi ba waa privé bi sax pour ñu jënd gant dafa yomb ci ñoom jumtukaay yi sol ñu fexe ba mu am ko à mu doy ba nga xamante ne ñoom din bu ñuy aaraat duñ am risque mais imagine toi li nga sol nga xam ne lii nga sol ni da ko waroon summi ngay jéem a sakkanal di xool noo def ba ba virus ba daal dafay dugg pourquoi parce que xam nga ne da nekk rupture fi ñu toll nii bu jeexee wala boo boo ko summee balaa nga kaa solaat foog nga toogaat ab diir yeneen doog a ñëw te temps boobu war nga mën a demaat si si si si malaateeg yooyu yëpp mm-hmm, mm-hmm. kon am na ay mbir yoo xamante ne yaakaar naa ne il faut ñu orienté fa xeex bi suñuy médecin nañ leen a jox ay jumtukaay yu mat sëkk mm-hmm. médecin buñ ci invité wala koo ci dégg mu wax dana naan jumtukaay des na nañ ñu dolli nañ ñu dolli te jamono ji pour man ñoom ñooy ñoom ñooy soldat yi ñoom ñooy soldat yi te dama koy faral di wax rek une armée sans arme ne peut pas aller loin wala ne peut pas faire des résultats ñoom boo nee ñooy sa armée te joxo leen ay ngàndaay mënuñoo faat kenn wala mënuñoo gaañ kenn wala mënuñoo sauver kenn kon boo nee ñooy sa armée da nga leen jox gànnaay yu tooy ñu am ay gants yu doy sëkk ñu am ay épée yu doy sëkk ñu am lépp loo xam dañ koy jëfandikoo mu doy sëkk ñu doog a ñëw nag ci nga xamante mooy liggéey bi ñuy liggéey mm-hmm. loolu euh, li nga xamante ni bëggoon nañ ko apporter euh, euh, ni moom moo di foofu assistance donc euh, mu nekk nag euh, ay euh, wax yoo xam ne si ni waxoon na ko jëm ci njaay ñu njaay matériel médical bi nga xamante ni dañu ko dañ ko dañ ko équipé woon lii di CTI ñu tekk fi pour faj ñi nga xamante ni ñoo ñoo am corona noonu la ñuy daal di waaxoo daal di dem ci wàllum làmb Moustapha mm-hmm. arène nationale démb organisé nañ fa benn séance de vaccination waaye li ci constat bi ñu def mooy amul benn VIP boo xam ne si ni tey teew na fa ci ci séance boobu Bira Sène nag daal dina yëkkati moom mi nga xamante ni moom moo jiite daal dina yëkkati ay kaddu nee na euh, bu ñu tijjee làmb ji pass sanitaire lay doon maanaam képp koo xam ne si ni euh, mbër balaa bëri lay am euh, carte de vaccination ñi nga xamante nii ñooy seetaan sax dañuy am carte de vaccination donc mu mel que ni pass sanitaire boobu bu bu làmb ji tijjee moom la ñuy exiger est-ce que dina yomb. moom koy yaatal na ko sax nee na jaaykatu crème beeg jaaykatu gerte caaf bi journaliste bi. en tout cas kuy dugg kuy franchir ci porte. waaw a gaaw boobu gën a gaaw da ngay am carte da nga da nga bi wane ne da ngaa ñàkku man damay naan est que Bira xam na xam na fi mbir mi toll parce que bu ko xamoon pass sanitaire ne veut pas dire que jàngoro du la dugg wala doo ko waalaate mm-hmm. xam nga loolu tamit il faut ñu xam ko mm-hmm. bu fekkente ne tey ji ku ñàkku dañ naan jàngoro dootu la dalati wala boo ñàkkoo dootoo amati corona wala dootu su boobaa man damay nekk en phase ak ñoom ba nga xamante ne da nga naan fii ku fi dugg ñëpp dañ leen a aar mais mhm. su fekkente ne tamit xam la ne dina wàññi cas grave yeeg yooyu am na benn benn mhm, mhm. Euh, sanitaire rek yooyu noonu miy jëm a dëkk ma ni Sénégal tolloogul foofu te li mu wax ni signal bu fort la ko mbër yi jox lan moo waral gisu fa benn mbër démb bëru Macky man bi ma leen bi ma toogee sama di seetaan dégg gis ay guy gi di def ay appel naan nañu ñëw dañuy woote ay <laughs> vacances wul mais su fekkee même wul nañ feneen sax mhm. mais ñu ñëw seen présence dafay am solo non si ñoom dañoo vacciné wul mhm. xam nga loolu affaire xam nga dañoo nekk benn frange boo xamante ne ñoom convaincre leen moo gën mhm. xam nga l'intellectuel mën nga ñëw di waxtaan ak un plus un égale deux mhm. nga expliqué ko ngeen justifié bi ngeen xool ngeen teg nga ne lii lii Pfizer la bi Moderna la bi bi Sinopharm la bi Johnson and Johnson la mhm. bi américain bi la bi bi bi bi bi fële la jógee Inde mhm. bi bi bi mi ngi jóge fële Inde Chine Chine nga expliqué wax leen bu nekk pourcentage bi ak njëriñam ak yooyu noonu yëpp kooku dina toog kat mu ne ah dëkk bi def nañ lii dal na sama xel naa dem ñàkku ji mais ki nga xamante ne moom njàngam sorowul

dara duñ fa dugg parce que am na ñoo xam dañ naan seen yaram moo leen gënal seen tàggat yaram ak gisuma benn mbër boo xam ne danaan damaa bëgg bëree rek moo tax may dem piqûre jekk yooyu noonu noonu amul am na si nag à l'exception yoo xamante ne dinañ dinañ dem mais ñu bëri si ñoom ak ñi jiitu ñëpp dañoo réticent ci lu jëm ci wàllum vaccin bi te ñooñu li waroon mën a def jamono ji c'est pas jëm leen ko obligé j'ai entendu ce ce ce même euh, argument euh, Maodo Malick Mbaye brandir ko mu ne bu ñu defoon noonu ci nawetaan tamit ni mbëri par ni footballeur tamit kalaa dugg ci stade bi wala kalaa ñu laa jox licence ak yooyu noonu yëpp il faut nga nga ñàkku genre yooyu noonu gis nga foofu du affaire bi jéem a forcer gis nga boo forcer li am France ngay indi fii. Mhm. France dañoo forcé gis nañ la fa am gilets jaunes on on parle de 200000 gens yoo xam ne dañoo wàccoon ci mbedd mi di kaas na ñoom dañoo contrepasse sanitaire yi. te xam nga ñoom seen i ñaxtu ñoom da nga gis seen i banderole seen i pancarte ñi kaas ak di ñaxtu ak yooyu mais fii bu ñu ci duggoon gars yi dañ leen di rax nga dégg toj ak yooyu man kenn du ma piqué rek affaire bi mhm. yegg foo xam ne soxlawuñu ko. Mhm. moo tax pour man li yoon bi ñu jël nii du yoon boobu. du yoon boobu fi fi fi fi ñu gën a soxla fi ñu toll nii li nga xam ne àddina yëpp d'accord nañ ci. même ñi nga xam ne du ñu ñàkku d'accord nañ ci mooy lan nañuy takk masque bi di raxas loxo yi mhm. di diwoo gel bi mhm. loolu ñëpp ci d'accord kon pour man foofu même bu ne ku ñëwul euh, ku vacciné wul ak yooyu yëpp li mu war a gën a def mooy mettre l'accent sur le respect des gestes barrières mhm. bu mettre l'accent foofu noonu amaana dina doon loo xamante ni dina leen dimbali ci xeex bi mais li muy def ni ñi d'accord ci vaccin bi dañuy toog seen kër bu ñu toogee seen kër amuñu beneen information dañuy jàpp seen ñàmbur kon bira seen damay jàpp ne dafa juum ak ñeneen nga xamante ne genre euh, procédé lañ jëloon et puis tout récemment ministre du travail leeral na bëggoon a parce que li dal euh, kër gi nga xamante moom moo di Senelec ak hmm. euh, Baobab yaakaar naa ni tamit euh, ministre bi dina génn wax parce que vaccin yi c' pas une obligation. Hmm. ku mu neex nga vacciné wu ku mu neexul nga bañ a vacciné wu. non ministre du sport moo ci war a wax. ku mu neex vacciné wu et sax foofu dañ faa tolloogul. Hmm. parce que gouverneur bi ne leen dañuy évaluer situation bi. buñ ko évaluer gis ne mën ngeen a tijji dañuy évaluer yow nga toog comme ni ñu koy waxee dafay bloqué trans transmission bi. Mm-hmm. maa ngi dégg benn benn test bu ñu doon def carnaval xam benn dëkk j'ai oublié le nom. Mm-hmm. bi ñu ko def bi ñu ko defee pare dañoo am contamination record parce que tellement que après dafa dafa dafa dafa mm-hmm. pourtant ñu bëri ci ñoom dañoo ñàkku donc du loo xamante ne tey ji mën nga ubbi stade bi nga ne nii dañuy ñëpp ñëpp ñàkku na ñëpp dugg nañ mais après nga may contamination bu fa am. kon loolu dafa dama yaakaar ne du solution. na ministre du sport wax ak ñoom yooyu yëpp. parce que loolu dafa am lu ko jiitu te gouverneur bi sax xam naa foofu la leen di xaar mhm. parce que balaa ñoo tujji tijji stade yi euh, yenn événement yi di démarrer comme làmb ak yooyu noonu il faut ñu teg ko fu leer donc du ay ñàkk moo koy garanti bu doon ñàkk moo koy garanti ba léegi am na dëkk yoo xam ne doo fa gisati cas mm, wala seen cas dootul bëreeti yenn bëri mm-hmm. kon dama yaakaar ne rek dafa juum parce que démarche ci làmb ji mm-hmm. fexe leen ba ñuy takk masque ñuy wax seen waa kër takk masque ñuy informer di joxe la bonne information voilà xaw wàññeeku bu ngeen impliqué seen gox seen goxaat tendance bi dina wàcc bu wàccee léegi ñu tijjiwaat làmb ji ñu mm. dellu bëri mhm. mais fekk tendance bi au niveau national wàccul du ngeen mën dem bëri parce que duñ toll di compter par exemple vingt neuf décès ñu naan dañ leen di bàyyi ngeen bëri ji parce que ngeen dugg ngeen toog par par jour quoi xam nga mun loolu mënul am ba pare ñu dañ leen di bàyyi ngeen ne bëri ji sous mhm. donc kon pour man xeex bi c'est de façon générale il faut que wax leen ñoom seen localité ñu mën a xeex bi su ko defee affaire dafay def tache mu yaatu parce que c'est des acteurs yoo xamante ne déglu nañ leen am na ñu leen di déglu ñu yaatal ko ñëpp jot si mbas mi daal di wàcc su ko defee ku nekk dellu see activité mhm. en euh, loolu moo xewoon na fi nga xamante ni euh, muy euh, arène ak séance de vaccination bi nga xamante ni organisé woon nañ ko fa waaye tak lañ ca gën a nemmeeku mooy absence ténor yi ya VIP yi nga xamante ni ñoom ñoo ngànk lamb ji ba tax na Bira Sène daal di yëkkati yooyu les kaddu ne dafay làmb ji képp ku bëgg euh, seetaan wala képp koo xam si ni tey bëgg moom moo di carte de vaccination euh, dernier point bi mooy euh, ñu wax ci li nga xamante ni moom moo di TER coow li bëri na trop ndax yàgg nañu fi joxe ay date boobu léegi ñuy joxe ay date chaque fois bu ñu joxee date rek daanaka date boobu du ko respecté Mansour Mansour Faye nag moom mi nga xamante moom la ñuy lépp loo xam ne si ni moom moo di dem beeg dikk bi ci wàllum maanaam transport terrestre au joxe na benn date le 24 décembre est-ce que gëm nga ni le 24 décembre nee na en tout cas le 24 décembre euh, terre bi dina daw donc jox na paas yi sax li nga xamante ne moom mooy euh, prix bi 500 francs la ñuy fay donc nee na lépp loo xam ne si nii daal en tout cas euh, luy ànd ak moom la ci wàllu sécurité yu mel noonu lépp taxaw nañ ci bu baax a baax est-ce gëm nga ni. TER bi dina daw le 24 décembre. ah man de balaa ma ko gëm dama koo gis parce que ministre yi fi jaar jox nañ date ku nekk ak datam ku nekk joxe na fi date looloo am. ministre bu nekk ak datam. ministre nekk ministre nekk jàpp na fi date. wallaay nekk ku nekk ku nekk ku nekk ku nekk ku nekk ku ñëw jàpp datam donc kon xam nga day loo xamante ne. pour man tant gisuma TER bi daw du ma ko gëm. loo xamante ne on nous avait dit au début que 600 milliards la. après bi ñu avancé gis nañ c'est plus de 1000 milliards yoo xamante ne dépensé nañ ko fi. xam nga TER bi dafay benn mbir boo xamante ne na mu dooree ni mu ñëwee ba ni mu toogee ba léegi ay coow kese la. Mhm. alsom bañ ko jox fële ca Paris France. Mhm. fekk fa entreprise boobu daanaka nërmelu na. fayit fayit la nekk daal wàcc na. Mhm. nga ñëw suqali leen jox leen doomi koppar yu ñu doy. ñu daal di suqali ko fa jaaree fa ne fu cat jóg taxaw. Ah. dimbali leen coow jib na beneen mbir mooy utilité TER bi. man je trouve BRT bi moo ko ëpp njëriñ téeméeri junni yoon que man man man bi nga xam ne milliards yi milliards yi def si TER bi mm-hmm. parce que man dama jàpp ne Sénégal mobilité bi nekk ci banlieue bi boo ñu indilee BRT tey ji bu ñu jógee dugg ji biir dakaar mm. mu doon loo xam ne daanaka di ngeen ñu dindi si embouteillage ak yooyu. mais initiative du ko gën a rafet. Mm-hmm. man dama koy saluer bu baax a baax nañ ko niñ ko initiative bii mu jël fii nii parce que ndaw yu bëri boo boo boo xëyee suba teel nga jël yoonu technopole bi. Mm-hmm. wala nga jël yoonu Padois bi nga gis borom scooter nañ lay rombee ak gars yi nii la ñuy def. Mm-hmm. fooy fooy ñëpp ñëpp ñëpp ngi jëm ci. jëm ci biir ñëpp ngi jëm Dakar ci centre ba. nga xam ne ko ñooñu boo leen defalee euh, moyen de transport bu ni mel da leen di dimbali te bu démarroon ngay xam ne gars yi dinañ ko dinañ dina dina am solo bu baax parce que mm-hmm. dina am lu mu dimbali non seulement embouteillage mën naa wàññeeku parce que ñu doon

courant bi moo xam ne si ni courant bu am doole la. Mhm. nekk aussi ci côté askan il faut ñu euh, maanaam ñu liggéeyee ko façon boo xam ne si ni nit ñi du ñu am accès di am di egg ci raay yooyu tax courant bi bi nekk foofu dafa am doole. Mhm. mais mais loolu aussi dafay laaj liggéey bu am solo. dafay laaj liggéey bu am solo parce loolu moom mooy problème bi. ça loolu mooy problème bi terre bi ñëw na. Mhm. raay yi teg nañ ko terre ma ndaw mais il faut ñu sécuriser ligne bi nga. xamante ni tey courant la courant am doole la boo xam ne. voilà euh, boo ko jegee sax mën na laa def naka sudul noonu. Mhm. xam nga pour man terre bi fi muy jëm defe naa Dakar la ak Diamniadio. Mhm. ah Dakar Diamniadio. Dakar Dakar fële la sax euh, AIBD la. mais première phase bi mooy Dakar Diamniadio. waaw instant bi ci première phase bi lañ nekk bu ñu jógee bu ñu paree après la ñuy def Diamniadio euh, AIBD. ñaata xëy ñooy jëy ñuy xëy dugg ci banlieue bi dem ville ak ñaati ñooy xëy jëm fii dem dem Diamniadio. xanaa fonctionnaire yi nekk Diamniadio ñoo fay dem wala wala wala AIBD. waaw ah, mais dafay dafay dafay dafay dafay jaar aussi. Mm-hmm. ay euh, Rufisque. no mais su ma su ma lay wax si ñuy déplacé wu. Ah, d' accord côté bi dina dina dina dina dina am solo mais pour man. montant bu ñu toy ah. montant bu ñu doy nga nga nga def nga def ko ci terre boo xamante ne man ba léegi njariñam

neex nga am fa kër. ku mu neex nga am fa kër loolu tamit beneen mbir la loolu moo tax ma yaakaar ne peut bu indee moyen de déplacement bi euh, moyen de transport bi bu ko fa defee. peut-être après bu commencé daw nit ñi dañ sawar si jam ñaajo mm-hmm. mën a doon benn politique dina encouragé nit ñi parce que suñ gisee ne facilement nga dugg jam ñaajo jël terre bi taf-taf nga dugg jam ñaajo ñëw Dakar di nga ah kon léegi dëkk jam ñaajo dina yomb loolu mën na doon ci kanam boon benn vision boo xamante ne ci kanam loolu mais pour le moment mm-hmm. à l'instant tey ñu nekk nii bu ñuy wax ne suñu waa santé yi dañu am jafe-jafe mm-hmm. ñi ñi milliards yu ñu toll bu ko imagine bu xaajoon ko rek mm-hmm. bu xaajoon ko rek mu dugal ko santé bi nga xool ñaata hôpitaux lañ fi am ak ñaata école lañ fi am ñaata abri provisoire te dëkk mënul ko mënul jëm kanam fekk ñaari dëgërul mooy santé ba mooy éducation ba wér wér le foog nit ñi di wér foog nit ñi di jàng ñaaroo il faut mu am mais ñaata abri provisoire moo fi am ba léegi ay xale yoo xamante ne buñ buñ buñ leen wanee nga gis leen mm. ko defee na examen yoo xam ne du ñu nekk wala foofu la ñuy war a réviser ak yooyu noonu yooyu yëpp ay mbir a saafara ñaata euh, hôpitaux nga xamante ne dañ naan laan dañoo am problème jumtukaay mm. ñaata ñoo doon marche Kolda récemment lañ fi doon wax naan dañoo am problème gynécologue nga gis yóbbu nañ ko fii kenn kon bëri jàngoro yoo xamante ne daal mm. pour man moo gënoon urgent terre bi. Mm-hmm. moo gën a urgent terre bi lu ci mënti am mooy que le 24 euh, décembre euh, bi ñu jëm euh, la ñu annoncé. man daal balaa ma ko gëm mu daaw rek. ah waaw mais saa mais nag nañ nañ nañ jàpp li ñuy wax rek. waaw dañ koy jàpp ba gis ko mu daaw rek. date bi moom datu Mansoura. bi datu Mansoura waaw. ñi fi jotoon a jaar jotoon nañu jox seen i date mais respecté wuñ ko xëy na Mansour respecté. <laughs> Ah, on espère que dina respecté date am. ndax ni mu waxee nii moom. waaw jàpp naa ni bon. Ah. décembre li ci des dafa bariwul nag on est au mois de. août ñu ngi août septembre octobre novembre décembre bareetul de daanaka ah, bu waxee loolu am na fu mu ko teg même ñeneen ñi amoon nañ date ah. hmm. ñoom ñëpp joxew nañ benn date date ay date yu précise dañ joxe comme moom ni mu ko defee nii hmm. mais dañ doon gis bu date ba ñooy ñëpp kenn ñëpp xool géej ku ne xool géej ku ne xool géej du ñu wax du ñu wax sax <laughs> jëm léegi après ñu ne pandémie moo taxoon après affaire bi yéexaat rek yooyu noonu bon pour une histoire date yi nii wala ak naka lay dawee ak nu muy dawee mën na doon turu daw tamit daw fi benn fan taxawaat ñu ne dafa am ñu yeggale wala installation yi am na lu des ak mm-hmm. parce que comme président moom moo am fitu inauguré fi terre ànd fekk première dame ñu inauguré dugg ci teeru mu daw ñu wàcc <laughs> avant élection yi kon kooku bu ko defee bu buñ buñ buñ fi dawalee teer bi te pareegul waru ñoo jaaxal en tout cas nekk na loo xam ne si di doy de toute façon ñi ngi toog ñun di yor suñ fi yàlla bàyyee mhm. eh, dinañ ci xam dara ndax décembre moom yàggatul mhm. donc ñi ngi xaar eh, bu ñëwee ñu ñu ñu xool ba xam ne Mansour di defa kum datam mhm. looy tàggatoo waaw li may tàggatoo rek mooy di la jaajëfal di sensibiliser comme ni mu koy baaxoo def bés yàlla sàkk rek ñi wey di respecte gestes barrières yi ñi nga xam ne dañoo am ay maanaam yenn jàngoro yi nga xam ne mbas bi du leen lebal ñu dëkk ak ñoom ci kër yi wala ñuy nekk ak ñoom ñu fexe di leen aar bu fekkente ne sa bopp da ngaa sàggan nga mm. seet si mag bi sax wala ki nga xam ne am na jàngoro jooju nga gën a farlu tuuti ba mu jaral la foo toll di takk sa masque bul gis ne euh, libaas du takk masque rek man du ma takk masque mm-hmm. amaana bokku leen nu ngeen mel yow am koo xamante ne mbas mi du ko lebal mm-hmm. yow ba foo toll ci mbedd mi di takk masque mm-hmm. boo duggee sa kër ga balaa ngaa jox kenn loxo nga raxas say loxo bu fa gel amee Euh, bu ko defee yàlla mën na suturaal parce que euh, léegi sax waxatuñ ñi nga xam ne ay parce que la ñëpp ñëpp lebalatul kenn gone yee gën a sonn ñëpp kon nañu nañu nañu redoubler d'effort rek mhm. yàlla baax na acca ak ngërëm ñeel na la donc li bas moo nekkoon ci wàllum réalisation bi ak technique bi yéen ñi doon topp nekk ci biir réew mi ak bitim réew sax foo suñu ay programme ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax ngeen wéy di abonné ci suñu chaîne YouTube Sunugal 24 activer la cloche de